léegi nag dañuy soobu ci li nga xamante ne moo di waxtaan bi ma koy door rek ak ki nga xamante ne moo di le président Moustapha Diop Moustapha Wade plutôt Moustapha gis nañ depuis presque une semaine ah, ñu ngi wax li nga xamante ne mooy coowal jëm ci wàllum DPG bi ñu xam ne président Ousmane Sonko war na fa mën dem assemblée nationale janok ñi nga xamante ne ñoo di way euh, député yi mais barki dem ñi nga xamante ne mooy groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dañoo def wax ne ki nga xamante mooy le premier ministre mënul dem fële ci assemblée nationale ndaxte li nga xamante ne yeneen dispositions yi nekkoon ci règlement intérieur bu assemblée nationale nekkatu ci kon waratu ko may mu dem fi nga xamante ne mooy mooy fële ci assemblée nationale yow bi nga déggee conférence de presse bi d' moo nekk sa première réaction euh, ci li ni mel si DPG ndax Ousmane jërëjëf Babou man de mbetteel bu bu doy waar sax laa ci am franchement bu ñu dégloo le président Ousmane Sonko président de PASTEF de 2014 à maintenant. li mu doon wax ak euh, fi mu ñu bëgg a jëmee man def def maa def maa jaaxal complètement léegi laa bind ci Facebook ne avez-vous perdu votre courage légendaire parce que on, une déclaration de politique générale faite devant un jury ad hoc man moom xam naa nag yàggaguma je ne suis pas un très grand intellectuel mais mosuma koo dégg fenn ci àddina le règlement intérieur de l'Assemblée nationale bi ñuy bi ñuy dénigré tey mm. moo leen installé en tant que député ci règle règlement intérieur Assemblée nationale boobu moom moo woo le ñu joxe une autorisation de lever l'impôt et d'engager des dépenses nga xam ne c'est une mission régalienne sensible kon qui peut le plus peut le moins une déclaration de politique générale mais Ousmane Sonko de quoi il peur réellement man looloo ma jaaxal Amadou Ba pourtant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne parlait pas d'un premier ministre mais Amadou Ba est parti là-bas mm-hmm. def sa déclaration de politique générale ba pare autorisé à ce qu'il y ait un vote de, confiance Biram Souley Diop déposé une motion de censure et on l'avait accepté on n'avait pas dit que non non non mënuñu ko que le premier ministre ne figure plus dans le dans le dans le dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est qui est une loi organique il faut le dire mmh. d'accord naa Ousmane Sonko ne man demaguma tant que modifié guñ loolu mm-hmm. waaye je vais le faire devant un jury ad hoc c'est ça qui est problème mais da ko wax mais dafa poser ay conditions mm-hmm. dafa ne may na gars yi fii ak 15 jours bu dee mm-hmm. gars yi defaraat li nga xamante ne mooy règlement règlement intérieur bu Assemblée nationale pas à donner de deadline à la liste à l'Assemblée nationale mën naa wax ne je ne le ferai pas tant que c'est pas modifié mais il n'a donner. te loolu duñ ko nangu. le peuple sénégalais mais est-ce que nangu ne nangu ni li nga xamante mooy règlement intérieur bu assemblée nationale dafa am nay carence mhm. nangu nangu naa ne il y a une carence boo xam ne ñun sax yëguñu ko woon mhm. franchement man est-ce que sénégalais yu bari sax yëgoon nañ loolu je ne pense pas cette carence là on peut la régler mhm. mën nañ koo <laughs> mais jarul nga ne fii ak le 15 le 15 juillet bu ñu ko deful je vais convoquer un jury de professeurs d'université xam naa ñoom ci am noo fay nekk ak ñeneen ak ñeneen des journalistes comme Diop alors je fais je fais je fais ma déclaration de politique générale tu le fais devant qui qui lui dit que man am naa confiance ci Thiam wala am naa confiance ci Diop wala am naa confiance ci Babou mi nga xam ne journaliste la nous nous avons élu des nos nos nos représentants qui sont nationale qui nous demande de lever l'impôt et d'engager des dépenses lan moo gën a graaw loolu lan moo gën a garaaw dans un état le fait de lever l'impôt et d'engager des dépenses c'est plus important qu'une déclaration une simple déclaration de politique générale